na façon Brahim bi la ñu miinu mais yàgg sénégalais yàgg nañoo rey ñaata nit la ñu yóbbu armée ci ay xar xëpp ak ak i liggéey nga faatu ñaata nit. waaw loolu de bëri na fi loolu moom. xeetu Sénégal li mm-hmm. mm-hmm. xam na ko. façon reyin bii moo bees mais sénégalais li ñuy rey ci mystique kenn xamul luñ toll. Mm-hmm. kenn xamul luñ toll. waaw ba ca des ñii yaakaaruma ni politiciens yi xaj na on verra avec le nouveau régime là mais yaakaaruma ñu criminaliser ko. ñu ñu ñu def ñu wàtte ko peine à mort ok su ko andee waa su rey ñu rey la nooy def ki détourné ay milliards ki détourné ay milliards donc doonte doo ko rey waaye bu boobaa waaye bu boobaa dina màggat ci kaso bi doo ko génn mm-hmm. ñaata ñu tey dee ci hôpitaux yi ndax manque de moyens kon ñuy détourné milliards yi ñoo dàq rey nit ñi ñoom li ñuy rey li ñuy rey tëli yaa ngi nii xat oto yaa ngi nii war a réew mi avancé bi mu war avancé lépp li ko li ko gàllankoor ba tax nit ñi di dee comme ay weñ mais responsable milliards yi ñuy tourné ci réew mi rek la ah feebar doo faju ah contrôlé wu ñu ma ma euh, alimentation bi dugg ci réew mi nit ñi di feebar de n'importe comment ah ah garab yi sax far garabu pharmacie yi ñuy jaay Sénégal sax yu néew ñoo ci baax yi ci ëpp seen waaye ñoo koy liggéey c'est false false la yooyu yëpp état bi tu gëmmu ci bëtëm mhm. kon état bi ku ko dàqa rey moo gën doon criminel ñëpp ah léegi lan nga jàpp ne mooy solution euh, sëñ Pape lan nga jàpp ne quand bu ñu ko defoon ray nga dina wàññeeku solution bi gis nga li ma jàpp ne mooy solution bi mhm. on verra ba xam gars yi dinañ jël assemblée bi mais man jàpp naa ne régime bi bu ñu jëlee assemblée nationale li ñu waroon a njëkk a def mooy tëggaat constitution bu bees mhm. Sénégal ñu tëgg constitution bu bees mhm. foofu la ñu war a bu ñu jëlee bu jël bi nañ tëgg constitution bu bees dugal ci li ñu dugal ko ci constitution bi te sànni fële ay wax laïcité ak ay wax yi nuñ ko tudde la euh, affaire euh, état bi comme bi réeru la ni nuñ ko tudde affaire affaire laïcité euh, laïque nañ teg yooyu fële nañu tëgg suñu constitution ci suñuy aar suñuy ci suñuy ci suñuy aada loolu mooy dëgg waaw xanaa bala ngaa xeex ñi ngi xeex ay jàngale ci wàllu jàngale jàngale olof jàngale olof yooyu yëpp nañu teg ci constitution bi nañu dellu ginnaaw tëgg constitution bu bees waaw loolu mooy dëgg jërëjëf merci beaucoup euh, jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko gërëm di ko sant Eh, gis ngeen mbooloo moom moomee ñoo ko daal di eh, gunge eh, moom Aziz ñëwaat également fekk ci ci ay cas de meurtre yu bëree bëri yoo xam ne am na mais je pense que nañu am confiance ci suñu ay police et enquête bi également confié nañ ko waa division des investigations criminelles selon la presse du jour am na ay pistes yu dëgër yoo xam ne quand même ñu ngi koy am mais quand nag ñu bàyyi di accuser ay nit de façon gratuitement loolu moom je pense que bokkul ci mando allo salaamaaleykum bu baax alhamdulilah na nga def kilifa gi nootu tudd ak foo ñu woowee. Cheikh Sow maa ñuy woote Tëngéej. Cheikh Sow naka Tëngéej. waaw ça va macha allah day day sant macha allah. bàyyi nañ ci jàmm rek. waaw macha allah du ma dara de du ma du nit yàlla du ma dara du ma kilifa. waaw. waaye tey dama julli def sama mboolem awraad yi. waaw. ndax taalibe Baay Ñas la def sama mboolem wérdi yi. Uh-huh. ma të ba ma jëlee ba def sama wér ba pare tëdd ginnaaw fajar di di noppalu. yàlla wan ma Aziz mhm. yàlla nag suuf mooy def lu neex. Mhm. yàlla wan ma Aziz mu toog sol grand bu rafet. kanam gi leer ni mu sol mbaane jël loxoom coom teg ci ko bàmmeelam. bàmmeel bi ñu ngi ko defar ni ngi rafet nii ñu ngi sol grand bu rafet jël coom teg ci kaw bàmmeelam. Mhm. te yàlla mi ma woon gént bi seede na loolu. Mm-hmm. kon yàlla. Mm-hmm. yàlla dina yàlla dina am ay nitam. nga xam ne ay wulu yàlla lañu ñooñu sax ñoom duñu xam ne ay wulu yàlla lañu te loolu moo ëpp nag loolu moo ëpp. ko daayoo gisoon nga dese bi. gisuma dese bi mais gis naa ak texem. Mm-hmm. waaw te du li ma sa sabablu du li ma sàkku mais yàlla mu ma woon ci gént. gannaaw ba mu jullee fajar dafa ma mboolem awra di tëdd di noppalu yàlla wan ma Aziz Dabala mi ngi sol gone bu rafet mi ngi toog toog toog ni kàpparu ko jël kalpem tekk ci ko bàmmeelam hmm. maanaam loolu day mandarga ak texi ok te euh, li may wax rek nit mun na nekk ci àdduna kenn du ko xam mu nekk di fecc di way def nangam nangam euh, nit ñi réeree ak wilaaya tam fekk wali yàlla bu mag a mag a mag mag la yàlla nag moo moo nëbb wilaayati bi di ko defloo li nga xam ne ñii dañuy yaakaar ne loolu amul solo fekk ak wilaayatu mu ngi ci moom te moom sax du ko xam. Hmm. mun na nekk waliyu lu ëpp di ñi nag dañu xam ne ay waliyu lañu nit mun na nekk waliyu xam ne waliyu la. ñu ngi Serigne Touba El Hadj Malick Baye Niass nangam nangam mais nit mun na nekk waliyu te moom day réere ak wilaayatoom. ok léegi yow euh, naka nga euh, jàngatee mbir mi ak lan lañ war a a teg pour xeex lu jëm ci wàllum. Euh, insécurité lañ koy tuddee xawma ndax euh, faat gu bëri geeg yooyu. waaw xam nga insécurité moom. Hmm. Euh, c'est dans tous les pays du monde. oui. soo demee dans dans dans les pays maanaam ils sont maanaam seen seen seen niveau de sécurité yegg na benn dayoo danga xam yow da da da nga yaakaar ne sécurité zéro. Hmm. mun na am mais eh, mais sécurité zéro mënul am. ok léegi lan moo mun a am lan moo mun a am maanaam les moyens de prévention. justement. voilà les moyens de prévention maanaam gën a yokk euh, ka karange bi gën a yokku les moyens de la police gën a yokku les moyens de la gendarmerie gars yi di def euh, euh, des rondes et aussi il faut que les voisins soient tamit maanaam ñu jàppale de ci seen biir. Mm-hmm. parce que j'ai vu l' appartement l' appartement de de de Dabala am am na benn appartement nga xam ne mi ngi contribuer ak moom maanaam mi ngi mi ngi taxaw ak moom. Mm-hmm. donc il faut se poser la question ñooñu xanaa dégguñu ay yuuxu wala parce que am na benn appartement ne mi ngi mi ngi tax noonu. ok voilà ñooñu voilà mais daal. Euh, ñoom solidarité quoi ouais. Mhm. voilà mais tamit. jërëjëf. Euh, bon gannaaw nous sommes dans pays laïque. ouais. Euh, donc peine de mort mënu fi am parce que nous nous sommes pays laïque laïque la peine de mort a été a été a été. ouais abolie ouais. donc voilà donc lu lu lu lu mën a am rek. moom mooy euh, gën a yokk prévention bi. Mm-hmm. et puis ñi tamit gën a jël seen matukaay ku nekk yow nga nekk sa euh, sa sa sa sa sa. sa garde quoi sa premier gendarme na non na nekk yow ton premier policier ton premier gendarme na nekk yow. ok dégg nga parce que bon nit ñi euh, bëri nañu les gens se disent amis mais y a beaucoup de faux amis. jërëjëf waaw ku nekk jël sa matukaay daal nekk sa premier policier nekk sa premier gendarme et tamit lu am solo lu am solo. Mm-hmm. ngay. aar sa bopp mool sa bopp dégg nga léemu sa bopp. Mhm. am na nga xam ne ñun ay ay ay ay ay yi ñu nañu. ay ay ay ay kër lañu ay kër nga xam ne diine jàngale na ko ne ko sooy génn sooy sa kër na ko def sooy dugg sa kër na nga ko def ko def su yow leer na la ay noonu am na ay formule yi nga xam ne feeg yaa ngi koy def feeg yaa ngi taxaw moom suñu borom mën ñëw la jàppale. waaw jërëjëf sëñ bi merci beaucoup. jërëjëf merci en tout cas ñu ngi koy Euh, jaajëfal bu bu baax a baax a baax en tout cas ci ànd boobu nga xam ne euh, mu ngi doon ko ànd ak ñun moom nag nee na dafay gis-gisoon euh, demu koke ñu ngi ci ligne bi ak Kaja kajaa ma ngi lay nuyu. waaw Bamba lay fay. ñoom mbégte contentement nga nekk foofu ci diwaanu France nekk également feccikat ñu bàyyi la nga nekk internet yi ñuy seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku internet ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñëpp